def leen ni ci yónneel faaxa yónneel faaxa yónneel faaxa def leen ni ci yónneel faaxa jóg leen màggal yónneel faaxa jóg leen màggal yónneel faaxa nabi Mustafa faaxa def leen ni ci yónneel faaxa yónneel faaxa def leen ni ci yónneen faaxa yónneen fadlan wa la yónneen fadlan def leen ni ci yónneen fadlan wa la yónneen fadlan def leen ni ci yónneen fadlan wa la yónneen fadlan wa la yónneen fadlan soppe yónneen tubi fadlan nabi Mustafa fadlan مولى يونل أخدا سبلا يونل أخدا يا جنبا أخدا يا جنبا أخدا فاتو بنت كبر أخدا فاتو بنت كبر أخدا أنا صفي يونل أخدا سبلا يونل لدلا لتهي كنا كنزل دفلني تي يونل كنزل nabi Mustafa kanusul nusul yu yu kanusul nusul dëgg dëgg kan nusul yu yu kan nusul الخدا هداك ويا تك نور تختي بها من دزاو كم راينا يا رسول الله ما كم راينا وما عليه سيقل الخط الحمى ما ليس يلهم الأقلاو ويسبع فيل ما تايسائب الفيل ولم ينفي الهجاء والزكاء وجمادات يا رسول الله أفساد بلتي أغرزا أغرزان لأحمد الفزاو ويا قوم جفوا نبيا بأرض ألفته دبابها وسباو وسلوا ونجسوا إليه وخلوا وداه الخرباء وأخرجوه منه وأواه خار وهمد همامة همامة ورخاء وقبر من الجان قبوته ما كفد همامة هزداء وطبا من على القرب مرؤه من سدة السور الغباء يا ونا المتبع يا رسول الله ونا المتبع مدينة الوثاقة إلي من مكة الأناو وتقانت بمته جني حتى أدرب الإنس من وساك القناو وطبا وتبعت رؤوس فتاه في عبد سافن لجرداو سمنا داو بغدا ما سيمة القصف وقد ينجد الخريق لنداو وتعاد ممر لمن وتعاد سائرا وسما واتنه الله فوقوله إسرافي فسيف الليلة التي كان للمختار فيها هل البراخ استواء ودرخا به ممر لمن الأخ قوسين وتلك سيادة قساو رتب تسقن لماني حسرا دونها ما وراءهن الوراء صلى الله عليه وسلم برينا لك moom bii day dem xaaral bi moom ak bii ña wax bi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 li ma wax ak jaami yàlla yi mooy gàmma moom léegi daanaka bana lii ma àndat ay ci ay jaami yàlla yoo xam ne def naa ci seen dënn yi lu bari mën nañoo taxawee gàmmu gi xanaa li ñuy wax rek liñ ma joxee rajo bi mooy may sant nit ñi mbooloo mi bari na doomu aadama yi bëgg na yonent bi ndax ñi fi ñëw yëpp sopp yonent bi leen fi indi waaye it mooy ba bàyyi ko rek bàyyi ko baax na bàyyi ko baax na bàyyi ko mu mel ni société mbooloo mi fi toog ëpp na lool mi fi toogoon daaw lool lool dara waralu ko la mooy bëgg yónnent bi amul kenn koo xam ne loo lekk mu la fendi wala loo naan wala xaalis wala leneen déedéet déglu si yónnent bi ñuy tàgg moo leen fi indi muy góor muy jigéen ba tax na su nit ñi ñëwee toog te man lañ waxoon ne ma def gàmm may koo def nit ñi fekkee la si ma jël seen cofeel ci yónnent bi indi ko boole kook suma bos ñu da ko taggee yónnent bi kon danaa leen wax alhamdulilah jërë ngeen jëf muy góor muy jigéen te jim wax nga dëgg bokki taalibe yëpp sonn nañ ñi dul bokki taalibe yi de xamaale yi mbokk yëpp son nañ ku ne lam man def na ko ku ne lam man def na ko kon kenn ku ci ne maa ngi koy nettali ci ba bëccëg ma ne suñ la joxee benn dog ne la boo ko liggéeyee gis yónnent bi nga liggéey ko seen benn benn meneebar wala benn lebres boo xam ne mu ngaa liggéey boo xëyee nga ne ki la joxoon dog bi mu la jox amut gisu la yónnent bi ankay ni mu toll ci yow loolu ngaa gis yaa ko sopput da nga doon wirde pour wuut ko rek su ko defee yàlla won la leneen ndax bu ko gëm waaye ki jeex ci moom bu ko feeñu du ko feeñoo melokaani lebres du ko feeñoo melokaani ku manki melokaan bu mat sëkk la koy feeñoo ba ba ngaa demee ba dootoo ko seet ci gént da koo seet ci sa bopp fexe ba xàmmee ko nga noppalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam Cheikh Paate guddi gi waxuma lee toxat waaye guddi yom moo leen ëpp lu waaye am guddi gi la ko jox yonent bi fi mu juddee si mu tuddee ko Muhammad fekk na mu juddu ay yoon moom moo wax ne lam yasal yanqulu nii min aslaabi taahirati ila arhami shakya ma suñoo dañ dama jëlee ci ndiggu góor ñu set wecc dama dégal ci biiru jigéen ñu set ba ma ñëw màkka kon mu ngi doon juddu waaye li tax ñu tuddee ko Muhammad nañ koy laajte kenn mësu ko tudd ci arab ca jamono fa jamono dépare ba ci moom moom rek a tudd Muhammad te suñ laa firil baat bi bal jël Muhammad rek neel Muhammadun ñu ne la ah mooy kan lu moo firi ki ñu sant waa léegi lu mu def bañ sant ko ba tuddee ko baatu Muhammad ku ñu sant lu mu def xam na lu mu lëggéeyal yàlla yow nak da nga fo ne bi nga ko gisé màkka muy jog ñu da ko xeex da ko sànn da dama bañam eh, génnee deretam muy dugg fële ñu ne bés bi la juddu baa la juddu yow fo nga ne mu ngi doora juddu judd mo wax na ne juddu na ay yoon alquran it amna na lu mbind takalu taxalu fi sajidin tourné bi nga tourné ci ndug indigi jami yi su jóotal yalla mu ne ma suma jaar ci fu amul leer ma suma jaar ci fu am lëndëm waaye ba tey it noonu la waaye bu nit liggéeyee ba wàcc poussière bi nekk ci kawam ak tilim foog naa bu sangoo ndox miy wàcc daay tilim tilim boobu lépp lu baaxul rek ci tilim boobu la bàyyi ko waaye lay sang bam seet lu ca bokk dootoo tilim li tilim yëpp ñu ngi tilimee ci sangit boobu man nag defoon naa benn gàmmo dakaar benn kaset baaxut benn kaset baaxut ku ko téeb rek yóbbuwu la te dëgg la yàlla léeg-léeg mu jàngale dama doon seet téere maa ngi dem conférence su ba mu yàgg yàlla génnee ma ci téere bi li ma xalaat nekkatu ci téere bi ma ba bind bakkaan fi suma seet la mu ñëw dama ma ne ko xaar ba maa ngi gàmm suma ma pare dinaa wax ak yow dama doon bind ba mu jeexalee ma ne ko gàmmoo naa ba pare faraa wëcc kayit ga dem parcel ñu ne ma yonti may leen ca ba muy tudd aadama muhammad rekk kay ma moo jur maamam muhammad rekk jur maamam parce que aadama ci muhammad lañ ko bindee te ñu ne mooy abul basar mooy bàyyi mbindee fi ñu ne maami yonent bi la ba kuy wax ñun sax dangaa wax suñ maam aadama waaye te yonent bi ba muy nekk lam nekk Adama moom pareegul bay paate Cheikh bi amul morom dañ toog ma nekk ci suma bëri wax gi mu ngi tëdd mu ngi fii bundung mu ngi tëdd ci benn piliyaan man ne yonent bi ne na kuntu nabiyan bil filaaliman bi nubuwati wa anama bayna maa iwatin yónne ne xam na ne moom yónnent la leer na ko te Adama ñu ngi koo tabax pareegul ma ne xam naa fu mu nekkoon ban aaya ban ban baat ban xaraf boobu du may noppi paate léegi laa noppi góor gi ne bëri toog ne ma xam nga ko ma ne ko am ne ma fan la ma wax ko mu ne mu ne ma ba jamono sampee tey benn xut bu masul wax loolu ma noppi jàngaleetuma ko moo tax léeg-léeg su ma meree doomi kële fii toog ne ñoo mën a jàng ma ne maa ngi leen a laaj fan la yonti bi nekkoon parce que amagul jëmu su amoon bon ñu génnee ci moom dara waaye amagul jëmu kon mooy lan ak fan la nekkoon ak naka nga ko mën a jàngalee bay paate am na lu yombul am na lu yombul yàlla ci coobareem laa defee du ci coobare jaam yàlla yi ki dégg naa bi nga wax nga ne li mu wax siixit wax na ko maam alaaji ma ndaw wax na ko ku wa kunta waliyan bi fi alin wa adama bayna maa wa tini waaye li nga dul xam benn problème rek moo ñu sonal bu la yonent bi joxee kanam moom la su la joxee gannaaw Cheikh Ahmad Tidiane la waaye nag ngaa def ba xam ko comme yaag sa sëriñ gént rek ngeen yaakaar ci yonent bi gént rek su ko defee sëriñ bi nga xam ne gént rek la yaakaar ci yonte bi bu taalibe bi ñëwee ne ko gént naa nanga na mu firé ko waaw man suma taalibe fu mu ne ma yëg ko billaahi la si laa ilaaha illa huwa ba gaay gént yëgul la dafa ñeme yàlla rek kenn mënuma ci dugal sooy dama gént nanga may la xaama ci da maa ngay nelaw léeg-léeg sëriñ ci dañ leen a jey taalibe yi bari wër leen ba ñuy wax lu amul te al alkas bu umul xabaais mbooleem luy bon fen la jiite léegi-léegi nga ñëw soxla leen ñu ne soxna si kan la ñu naa ah, diw la de comme mu nga sol mbu maqar comme Cheikh Kébé mu ne wax ko ne maa ngi nelaw bay pàtte est-ce que dëgg la wax nga lu amul wax ko sa jabar su waa ji benn wala pajirooñ nga ne mu ne ah kii de borom nangam la mu jagalaat mu bi dellu defaraat ba jeg na <clears throat> ne ko mu agsi nga agsi mu coog yow bokku li ba di teen billahi la si laay la wa gisul dara yow la bugg nax gisul dara waaye nit ñi itam xam nañu xane xam ne mënoo leen xee ndax dañ leen wara dundé ku am bot paré parewul fay gisuma foy jaar ba du son ku am bot te paré la fay foy jaar ba do son gisuma ko te fayeeku bi ñuy fayeeku fii yóbbuwante police demante euh, naka la koot moo gën a yomb fayeeku bële ba pare fayeeku bële li ma ci naqari ba tax may wax ne lu ma nit def baxal naa la ren mooy juróom benneeli xaat ma ne lu ma nit def rek baxal naa la bëgguma toppante kenn dara yomal xiyaam daf maa sonal parce que ñi ma gis ñuy fayeeku te ma xàmmee leen ci àdduna bi te yomal xiyaam euh, àggagul yow mii fayeeku dangaa tilimee ni ni ki ngaa fayeeku xesew comme moom soo ko jéggaloon du la ca fekk moo tax sàppe ñoo ak sàppe maa gën bokkuñ bul bokk ci sàppe bi nga em ak nit ñi fexeel ci bi gën nga bokk ca ñi fi sonn nag ñi bàyyi ko Sénégal ñi bàyyi ko Gambie ñi bàyyi ko fu ne xam naa mu ngi bugg a xaw a doy waar fu seet kay ba dëkk Gambie fu mu juddoo Gambie fu moo defee gàmmoo bi waa Sénégal ëpp ci waa bi gàccee la te ku foog ne jotaay bi caaxaan la boo ko xoolee da nga xam ne war na laa jommal la nga daan gis ak li nga gis tey xam nga ne du caaxaan te wallahi laa sim déwén laa ëpp foofu foofu jim joob loo reyee daaw fukki nag ak ñeent ren am nga ñaar fukk soo waxee nit ñi ne biir xàll boobu danañ faree ñaar fukki ñag ñu ne da ngaa caaxaan te kër ponkal yi ngeen yaakaar ci gàmbe kenn du faree la mat juróom-ñaari nag ci benn gàmbo amu fi bii ci àll bi fukka ñett ñaar fukk dara la boo dofee it da dem ba sa xol bee bañ waaye da nga yëg ne leneen nang fi leneen nang fi su ko defee ñu ngi ñaanal ñaari réew yi jàmm sax ci su jàmm amee rek ñun ñu am jàmm waaye ñaari réew yëpp bu mu ci mën a do sikk si yëpp buy bu Gàmbeeg bu feneen xol yee ñàkk a juboo bi moom xol yi dañ joxante gannaaw kenn mën ta fexe bañ juboo bu ñu bokkoo fii sax wóolaante wuñ ci seen bindukaay loolu ñaaw na ana islaam ana ngoor ana ak bokk ana dëkkandoor dem ba kenn óolatul kenn naka la réew mi baaxee du yomb de jaaraguñ yoon ba foog ñu góor góor lu pour xol yi jàkkaarle foog ñu góor góorgóorlu pour ñu buggante foog ñu góorgóorlu pour ñu yërëmante foog ñu góorgóorlu ñu bàyyi urujante bi mos naa ko wax at yële ca gannaaw ku jàng Moustapha Kéema moo am diplôme bi war a yor place bi waaye yow yaa jege daa nga fexe ba ci place bi jox ko sa mbokk boo xam ne jàngul dana yàq alal ja tooñ askan wi bàkkaar boobu topp réew mi du gaaw a jeex nañ de jox place yi ñi ko moom te man koo xamee bul seet sa mbokk ñi la fal faluñ la pour sa mbokk yow faluñ la pour sa bopp dañ la faloon pour yaakaar ne danga leen jàppale ci réew mi kuñ fal ku ne loolu lañ yaakaar ci yow boo fa jaarul rek ruñ nga leen ñu bàyyi ci xel ñu bàyyi ci xel ñun nag li ñoo wax dinañ ko wax gàmmo loon doon dama ne comme am naa ñàkk fulla jog dem sànni ji su réew mi doxut ma am fulla ji toll nee na doxut du ma xale duma xale comme xam naa ci dara xam naa luy dox sëriñ daay dem ba toll foo xam ne mook docteur yam waruñoo wax waaye yow mi ci biir nguur gi dana xam moom loo xam ne yow doo ko xam ci biir mënul ñàkk ku ne laay waxat paate maa bañ ba fii bu njaboot ga amee problème doo ma seen police station dama bañ ñu ne damaa jaay na kilifa laa xamuñ ma doxi suma soxla rek ebal keneen mu dem toppatoo ji ma toog fi ma toog te danaa la wax ne li maa wax nii li tax ma ñeme ko danaa la ko wax mooy ne yàgg naa koo wax ni ci nguuru jawara ba nguuru yaay jame ba nguuru Adama Baro lekk la gu ma buur sukar wala maalo xanaa ma dem kër jàmbur ñu toog ko jox ma ko waaye billaahi mësuñ ko togg suma kër ku baxee nit ñi ñaar alal ak daraja soo ko baxee nit ñi moom sa bopp gor ngaa doo waaye suñ la yurnoo ci daraja ki am pexe dana la bu buñ la yurnoo ci bugg alal ki am pexe dana la dugal ci lu la neexul nga am ngàcce dimbalewu ma kenn ci visa dimbalewu ma kenn ci passeport soo soxlaa passeport ma am lu ma la dimbalee suma xaayu waaye du ma la demal fenn da jël këyit naan lijjanti la diw nangam du ma ko def soo ma nu visa ma ne man naa ñaan nga dem wuuti waaye bokk ma bu tagee nga def na da ni gàmbee yàkkamte sekke bi ñanaay seen sëriñ moo fi lekk xaalis si diw kenn du ko mos a dégg abadan bay suul ma nit du ko dégg booy yar nit ñi dangaa jiitu ci li nga leen a yare waaye doo nekk tooñkat day kat ki nga yar bu melee yow réew mi yàqu su ko defee gàmmoo gi ñu ngi koo santee yàlla Cheikh bi dañu ko santoon ma gàntu mu waxaat ma ne maa nga wax mu ne ma sa yoon nekku ci dama la ko sant bu dee ak sa benn doom ak sa benn jabar sax def leen ko ren ba paasee ma dem mu ne ma naka la mel ma wax ko mu ne ma sa maam alaaji Malick bi moo sampa xamul mbooloo moomu te bii mooy bële moo ma ko waxoon maa ko fekki moo ma wax ne bii mooy bële moo ma waxoon ne ne oto yi danañ wàññeeku dégg naa féeri bi léeg-léeg booy romb ñu ne yéen fu ngeen jëm nit ñi de gàmbale Sénégal yéen ngeen ne da ngeen naa dem Gàmbi waaye wa tilkal aayaam nu daawiluhaa bayna naas yàlla ne fan yi dama ko tourné tey diw mooy aye ëllëg kële mooy aye su ma buggee tooñ ma ne sëriñ si nanguwuñ ko aye waaye ku ci am jabar te aye wala ñaar ñett ñu dóor la ba nga bëgg a dee réew mii ku fi nekkoon tubaab yi jawar a toog wàcc na yaay wàcc na ki toog yi ndaay wàcc bu waxtum jeexee rek li ko yàlla appal buy jeex mu jóg du moo cee man dara bi ngaa falu da nga def pexe waaye booy wàcc loo am benn pexe doo ko yëg moo tax bi nga ceenee fexeel rafet ndax bu ëllëgee bu jeexee nga nga déggoo ak ñëpp daf ci jar a bàyyi yàlla xel de li ma jaaxal itam bu nit faloo mbokk yi bu ñoo jàng duñ jeexal aaya bi xuli allahuma maalikul mulki waaw diw yàllaa ko fal xuli allahuma maalikul mulki tuuti mun ko mënta saa fi ngaa xem yàllaa ko fal mooy jox nguur ku ko neex doo xàggale aaya bi jeexul tuuti mulka man tasa wa tansihu mulka mimman tasa wa tuhisu man tasa wa tusilu man tasa bi yadika alqaid innaka ala kulli shay'in qadir way duñ fa ag dañ ko dok dedet wax ko nit ki li aya bi wax wax ko ki falu xamne fo le ko nge ñew dana yërëm jam ñi def lu rafet and ak ñom mu noppulu way ki falu nga de ko jey yang ko lor dimbali hoko ko ku jey njit da nga de ko jey waxo ko deug yow na la sori da nga yaq te ñi la jey ñop luñ am la ñoo waxuñ pour deug nit bu ñëwee bu yaakaar ne bu waxee dëgg ñàkk du wax dëgg bu waxee tappale am mu wax tappale te li nga def tappale ba am soo ko defee dëgg am fukkam nañ góor góor lu dund ci dëgg te yéenaante jàmm réew mi mas naa ko wax boo président yaaya président yaaya ngee dund ñaari at ca gannaaw ma ne tànt bu toll nii ci Gàmbi benn nitu nguur du fa taxaw Gàmbi rek a koo def te benn ngu nitu nguur ñëwu fi yonent nguur gi xebalut kenn waaye suñu yoon suñu yoon su ma sëriñ lam ma waxoon ci loolu laay dund boo nekkee ci réew kayit gu ñu santaane du mooy yàlla wutal luñ la aayee te du mooy yàlla baxal luñ santaane te du mooy yàlla defal ku am ku jiyoo buur doo am joti jaamu yàlla ñun nag suñ jaamu yàlla gi bëgguñ lu ko yàq moo tax duñu yalwaani benn buur su fekkee loolooy tax ñu dimbale ñu bon duñ ma dimbale du ma yalwaani kenn kenn jara yalwaan mooy tabaraka wa taala te am du jeex moom rek laa yalwaan ba jubóog moom xool leen ni tànt bi em benn bu ko em du am gàmbi kenn gisul la toll nii ci biir gàmbi tey amut bu tey passé tànt boo mën a tànt du toll ni bii waaw lu tax kenn benn ci boo doomi nguur ñëwu fi man gan laa waaye bu ma nee Sénégal maag ministre yi maag jaraaf yi maag ñëpp ca Sénégal waaye gàmbi moom sànni ma kenn du fi ñëw ma Sénégal maag ministre yi maag jaraaf yi waaye noonu la xàmmee dafa baax ñàkk a xàmmee baaxul léeg-léeg ngay bañ nit te moo laa dimbale te doo ko yëg léeg-léeg ngay bañ nit de ko teggi de ko xeeb te li liy dox ci yow moo tax muy dox te xamoo ko Gàmbi moom beneen jamono waaye du bii yàlla dogal na Cheikh si signé na police yàgg maa xoolaat man seet kay bala gàm bi ku toll ni man du fi nekkagum feeg maa ngi dund na ko sëriñ si yëpp dégg na ko sëriñ si yëpp dégg ngeen seet luñ ci man yàgg naa koo wax de yàgg naa koo wax dafa am loo xam ne xamoo lum do dafa uuteeg mbuur nguur day folleeku waaye sëriñ bu jubee fu mu toll gën a dem ci kaw te lii commencé la demul de billaay danañ dem baye bi du fi xaj su ma waxee ñu fone waaye léegi su ma waxee danañ ko war a gëm parce que li xewoon ak bu ñu xoolee ni mu toll tey su ma waxee war nañ koo gëm léegi te bari nañu ñëw it te kenn woowu leen su ko defee ñu ànd góorgóorlu ci fonk yont bi mooy rawukaay bi moo yor nga ji fi la yàlla defale ni lim koo defal lépp lu waay am ci yunt bi nga koo xamee ku ko fonk jàll ku ko desal gannaaw itam da nga des gannaaw de su ko defee mbooleem ku teew ci gàmm gi ñu ngi laa gërëm mbooleem ku ci def sa butul gërëm nañ la loo def nu mën a toll yàlla nangul ñu ngi ñaan yàlla nangul ko ñëpp ñi saraxe ñu paas ñëw ñu ñëw fekkee si ñu ñëw toog ak loxooy neen de dégloo ñëpp bokk nañ ci daraja yonent bi yéen la fay ñëpp teraangal ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp nag bàyyiwuñu kenn mbooleem ku bàyyi ko Sénégal ak ku jógee Gambie ak yëpp yéen nag ñu ngi leen a defal ngërëm yéen police yi waaye am na lu ma leen waxoon waxoon naa ko seeni moroom mooy amaat danaa leen fii ku fi ñëw doo àtte kenn gàmmu gi police du fa mës ñëw ba àtte fi ñuy xeex doo fi àtte ku sàcc doo ko fi àtte parce que jiitu na ñaan nañ ba pare te dañ ciy sonn lool day ñaan pour jaam yàlla yi ñëw sax bu waxuma gàmmu gi waaye àddina bi ñëpp danañ dégg may ñaanal àddina bi yëpp boo dem fu waaye da gàmmu ji na dem ci jàmm te ñibbi ci jàmm te yenn yàlla nangoo gàmmu ga kër sëriñ si duñ koy ñaan waaye xat mu jot ma ñaan ko waxuma fii rek de tànt bii déedéet tànt mboolem tànt yi ci kaw suuf su ko defee ñu dimbalante ñu bàyyante xel waxtu bi dem na léegi ñuy gàmmoom fii te mën naa bàyyi léegi li ñu yar bëri na dañoo dem place yu bëri du ma dem te su ma jógul ci kanam nit ñi duñ xam nit ñi Moustapha su fekkee gàmmu gu jot ma taxaw wax ba sonn gàmmu gu jot ma wax ba sonn kañ la ñoo xam ñi ci suma gannaaw ma jàngaloon leen naa jóg ci seen kanam nit ñi xam leen ñoom itam mooy yoon waaye toujours ci kanam nit ñi kenn du leen xam loolu ci man coxoon la ak kañaan am na ci bokk tali bi ñu ma laaj lu tax man du ma li sixaar du seen ma ne ko defuma ko mu ne maa ma ne ko su ma ko defee ñi ci suma gannaaw lu ñoo xam kenn mënul maa li si xaarloo jarul sax nga ñëw kenn du ma seetloo jarul nga ñëw defuma ko tey defuma ko ëllëg ñu ànd ñun ñëpp dund ci yàlla suñu yaay yi fi nekk ñu leen a nuyu di leen gërëm Aliou wax na dëgg yaa jënduma yaag suma yaay daan ànd ngeen ñëw mënatul waaye loolu lañ doon ñaan fi ne leen la dese xuloo rek moo xale yi moo yaamu ndaw bu dikkee na ko dafa xoo yaamu ndaw magam laa ko tuddee yaamu ndaw xuyuut ko mu ne ko yaamu ndaw lu xew yaamu ndaw ne ko dama la tongoo mu ne ko lu tax mu ne ko baal li nga wax nañu mu ne ko suma làmmeñ wi laa xam manumaa xeex ko ma tooñ ma wax la lu la naqadi su ko defee ñu bàyyi ana Baara Ndiaye Aliou kaay jël rajo bi su xale yi yëngatu tuuti Baara Gàmmu Pire maa ngi gërëm mbooleem ñi fi toog su ma limee danaa am ñu ma bàyyi Moussa kamara yéen waa Vélingara ñu ngi leen da jagleel xaas nuyoo ak siyaare ak dalal li ci des su ma buggee wax ak ñeneen rek dana am ñu ma tagg bàyyi ñi ci des si loolu laay moytu yéen police ñu ngi leen a ñaanal yokkute ak wér te réew mi nooy xamula mu ñëpp ji woon du jar xa waaw am na ñoo xam ne yéen taxu leen leen a jóg mhm. waaye xam naa ñuy yërëmante rek mhm. néeg nag kon ne ne place ba nga nekk ci nga mën a dimbalee ci nga mën a liggéeyal yàlla ci nga mën a dimbalee ci nga mën a def lu la neex itam def lu la neex nag wóorut fexe ba dem ci police gi ba personne ci te ñëpp xam la ci baax moo gën affaire bi dog te am dafa jaam jaam yàlla yoo xam ne boo leen toroxalee rek ëllëg nga jógee fa nga ne te doo ko xàmmee waye amna ño xamé xam nit boo def ak ñoom tiraanga ñu ñaan dootoo ñak dara ba nga jéxal sa liggéey jërë ngeen jëf yeen yàlla yëkëti leen tahar leen barké leen barké seen liggéey jigen ñi yéen ñu man fu ngeen dem dom buy jang dom buy sey jom bu tukki yeen yàlla jappalé leen li ngeen soxla ci seen jobot bi jaamu Moustapha al Karim kon bismillah Aliou radio ba ngeena na baara gàmmo suñ jeexalee ci suba mo waxati li ma wax foofu la taal affaire bi tàmbee ok kon dafa melni liñ doon xaar رب بنوح وبإبراهيم اغفر ذنوبي وفني الرجيم وكن بموسى وبجاه لي في دنياي مغرايا النور والخلو والمزايا بعقد الخطا وبالزبير وعقد سعد نجني من ديري وبسعيد لها من أي ولد العباس كسر العلم بحق عبد الله النجل الأمراء عن اكفداء ما يجر دررا وبابن مسعود وجاه ابن سلام إن البلاء وذو وكلام يا ربنا بحرمة ربنا كل باس بحرمة الحسن والحسين جلي في الدارين بالنورين بحرمة الحسن والحسين جدلي في الدارين بالنورين بحرمة الخاسم ثم الطاهر صف الزوائر يا ما بحرمة الطيب إبراهيم أدم علي البشر والتكريم بجاه فاطمة أفتن نفسي عن كل ما يجرني لعبسي وبالرقية وزينب أكفني الترد والإجابة كل زمني وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجنبني النقم بأوسن بن هامر وغرمه وحق مصروخ انتخب الكلم وبالربيع وبجاه الأسود قبل سقامة وقوم أودي بخامر بن خابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولاني يدني بالغفران والسهادة من قوايا والبدع وبأبي هريرة وببلال وبالصهيب رب جدلي بنوال وطاعة اقبل واشفني من دائي سرا وجارا بأبي الدرداء بهمة المقداد ثم خالدي وبالزبير أولني مقاصدي وبأمين مخارجا زدني أخاف المجتبى منافج وبأبي بكر بالله زدني أفضل ما لا تناغي وبسليمان إني كيد الرهين وكيد خيري وكل جملة الأسوار والهناية وبالنجاة من سؤال